effectivement dafa am ay zone yoo xamante ni dafa am ndox yu fa nekk yu sonal euh, ñi ñëw ci màggal ak ñi nga xamante ni dañuy préparer màggal bi. 28 point A ñaar fukki zone ak juróom-ñaar yoo xam ne leer na ne ay kër génn nañu ko li génn ci ay kër ëpp na ay téeméeri téeméeri kër. ay ñoo xamante ne gis nañ ay kilifa diine boo xam ne këram lu mat téeméeri nit doon nañ fa dal nee na ren ñooñu suñ ñëwee duñ fa mën a màggalee. Hmm. maanaam épicentre inondation yi. mooy ngiraan leen ngelamu daamaatu kër ñang fan yee maa ngi leen doon dégg ngeen di waxtaanee benn raakool buñ dagg ngi mhm. mel ni nga ñëw ci géej sotti fa benn toq mhm. du ci ngarti ngart dafa am yenn yoo xamante ne day yàq parce que inondation boo ko déggee foofu moo Touba mooy zone yi nga xam ne mooy point bas yi nga xam ne askan wa ñu ngi dund jafe-jafe mhm. soo ñëwee tey yow ci deux voies yi fi nga xam ne fa lañ daggoon raakool bi deux voies yi la fi jàkkaarloo ak mairie bu Touba. Mhm. boo fa benn voie bi dafa nekk point bas maanaam point bas mooy dafa xóot ndox mi dafay faral di taa. Mhm. léegi day takk benn voie bi maanaam yeneen automobiliste yi yi dem jumaa ja dañuy emprunter benn beneen voie bi. Mhm. foofu nag la ñuy jël pompe bu mag defar ko ñu koy pompe di ko dugal ci réseau waaye dafa am ay ñoo xam ne ay taalibe sëñ Bamba lañ taalibe sëñ Muntaxa affaire bi di dugg seen i biir kër ñoom comprendre ruñ parce que ñu ngi xaar seen i gan ci baleeka def yëpp. ñu dem dagg ko waaye ñenn ci mi nag ay xale ñu ñëw def ko politiser ko def ci ay vidéo di wax naan ay terroristes yi ci yëpp ñoo def laa di yokk di def ay affaires yoo xamante ne loolu vraiment kenn rafetlu ko. tey mhm. Mountakha Mbacké Bachir nag wax na ne ñooñu dañu xamul. Mhm. donc loolu ça n'a rien à voir ak inondation bi. Mhm. su nekkee yow président Macky Sall ngay jàppale bëgg nga ko jàppale il faut nga wax ko ñoom xam nañu ne effectivement te ministre bi ci boppam ministre Antoine Félix Diome. pour la gën a yëg ne vraiment bassin ba amoon na problème parce que léegi ci réunion d'évaluation bi Abdou Bassi Sow wax ko ne ko yónnee naa la vidéo yi. Hmm. donc bassin bi dafa dem ba benn instant mu feesoon pour pomper si woon parce que boo pompee bu duggee ci bassin bi dafay commencé woon di toj. Hmm. mais nee nañ daaw la tojoon waa ONAS te xam nañ ko. waaye dafa am benn camion moo fa jaar bënd ko ndox mi di xel di dugg ci toolu jàmbur yi. Hmm. donc loolu moo nekkoon problème ba. waa Ngiraaneen aussi dañu ne bassin bu Kër Niang bi dafa fees. déversé wu ci seen quartier da gis eh, bu nekkoon vingt moo fa génn une centaine de maisons génn nañ waaye terewul aussi autorités yi ñu ngi def ay travaux ONAS yi nee nañu mënul pare ren hmm. euh, peut-être déwén jàmm euh, parce que si dix-huit mois la hmm. moo tax pareegul moo tax inondation yi am hmm. léegi loolu la waa ONAS wax. d'accord mais ci daar daar ci daar daar lan la ONAS def euh, pour jéem a soulager daar daar li fi xew mooy ñaar fukki ay moto pompe yu ndaw moom ñu jël di ko jox ñi nga xam ne ñoo di askan yu ñuy pomp di jël di dugal ci réseau bi mairie bu Touba moo jënd ay moto pompe ak ca kanam ak Cheikh Abdou Bara Dolly ay bonne volonté yi ñu seddale ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, euh, chef de quartier yi waaye pompe yooyu heure boo pompé fi nekk nii démb taw na mhm. tey mu ngi doon lu si ba pare axe yi nga xamante ne fa lañ war a jaar ci bari la ñoo dakk ndox mi jéggi na dayo foo ko natt weesu na ko màggal mhm. foo mhm. que déjà su benn voie nga xam ne moo nekk à hauteur de bi foofu ba léegi dafa dagg parewul mhm. ñaareel mooy yeneen basson yi maanaam vingt points bas yoo xamante ne une vingtaine koo ay kër yu génn ndox mu fees nit ñi ngi xuloo bërki démboo Njaay am na ñoo xamante ne dañoo génnoon sax pour baare tali ndax ndox moo xamante ne dafa fees seen i dëkk. Mhm. boo weesoo ndox moomu aussi. dañu ndoxum naan ndoxum naan ni chaque année ku ne xam ne Touba day am manqué ndox. Mhm. ñoom nag nañu euh, defar nañ forage yëpp léegi ci réunion d'évaluation bi ministre bi wax na ko. Mhm. waaye nag am na ay askan yoo xam am na jafe-jafe ci wàllum ndox. donte defar nee nañ defar nañ forage yëpp. waaye ñoom li ñu expliqué mooy Senelec mooy defar ay branchement looloo tax ndox mi ñëwagul. waaye ndox mi waaye ñoom état Sénégal. Euh, président Macky Sall nee na indi na vingt camions citernes yoo xam ne dañ ko préposé ci penc yu mag yi. oui benn bu ci ne mille litres lay def pour fu ci am jafe-jafe daal di koy euh, affaire jafe-jafe ndox waaye li leer daal mooy. oui Touba am na 33 forages. Mhm. mais ba léegi mënuñoo am ndox. Mhm. actuellement nii ñu ngi wax Touba duñu fay ndox waaye li ñuy jënd ci ndox par jour moo ëpp parce que boo calculé nga jënd mille francs. Mhm. ci ndox ci ndoxu saret. oui du ndoxu potable ñun Touba ñun. ndoxu tàng lay naan mhm. te nekkul ndox mu ndox mu neex da nga jën def ci sa sa sa sa koy waxee sa te bu mhm. mille ñuy jënd ku ne xam ne ne ci àll bi forage ci àll bi rek mhm. euh, mètre cube ñu ngi koy jaayee deux cent cinquante te mètre cube mille yooyu cinq bidon nga ciy am mètre cube ñaata bidon nga ci mën a am xam nga junni litre la mètre cube nga ci am ñaata bidon vingt litres donc kon ñi ñoo gën a sonn li ñuy jënd ci ndox par mois bu ñu ko calculé woon borom kër yi te ay góorgóor la ñoo fi nekk ay baay père surtout ñu nekkee dans les quartiers périphériques hmm. conditions yu métti yu délétère donc état Sénégal nañ ci taxaw loolu sax moo tax ñu ne euh, xaalis général des mourides projet bi gën a mag après université mooy jéem a indi lac de guerre am ndox mu neex su ko defee nit ñi mën a fay waaye daal actuellement nii màggal gu mu am ndax jafe am na ndax inondation mhm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Mamadou Makhtar Sarr situation bi euh, wax nga ko effectivement une euh, Nessa mi ngi mel ni situation bi inquiété wala dina inquiété quand même bu ñu ko déggee euh, li mu wax ci ay kër yoo xamante ni dañu leen mujj abandonné parce que tout simplement ndox yi moom moo fa nekk ba créé fa ay situation yoo xamante ni yu doy waar te kër yooyu souvent dañ doon recevoir ay nit ci période màggal te jamono ji ñu bëri quand même ñu ngi jógee fu nekk ci àdduna pour dem Touba fois euh, pourquoi état du Sénégal du jël euh, mbirum màggal boobu au sérieux euh, chaque fois dafa mel ni éternel recommencement la dañuy dundaat li nga xamante nañ ko doon dund ci màggal yu daaw ki yeneen màggal mais loo loolu mooy question boo xam ne moom la ñëpp di posé wu pourquoi toujours c'est c'est toujours les mêmes problèmes à Touba mhm. Touba c'est toujours un problème d'assainissement boo waxee bon en dehors même màggal bi xam ne parfois màggal bi war na mën na tombeek boo xam ne doon période hivernage mhm. mais bu fekkee ne dafa tombeek période boo xam ne nekkul période hivernage le principal problème bu ñuy soulever mooy le manque d'eau maanaam manque ndox ndoxu naan boobu la ñuy poser d'abord malgré le nombre de forage important yi fa nekk je rappelle que presque am na ay euh, directeur OFOR yu bëri nga xam ne jaar nañu fii chaque fois buñ fa nekkee buñ fa jëlee nit rek ci problème mu Touba lay jóge problème mu euh, ravitaillement en eau potable c'est à Touba mhm. yooyu en tout cas directeur OFOR OFOR mooy office des forage ruraux ñu bëri ci ñoom Euh, ki fi mujjee. Mhm. pas ki fi nekk actuellement de. oui am na am na ku fi nekkoon euh, jusqu'à daaw rek ku fi nekkoon daaw. Mhm. mais il avait ces problèmes là pourtant si magal bi il avait pris les il avait avoir pris le taureau par les jël toutes les dispositions ba problème mu ndox kenn dootu ko en tout cas euh, jooytu à Touba. bu mel ni tamit boo jëlee le problème de l'assainissement ONAS boobu ngay wax. ONAS a toujours des problèmes d'assainissement des problèmes d'évacuation d'eau de pluie à Touba. chaque fois bu tawee moom faaw nga dégg inondation pour une ville boo xam ne dañu ne parce que Touba à part Dakar c'est presque la ville la plus peuplée. fi mu nii alors mais là maintenant bon on ne peut pas laisser une ville grandir comme ça ba mën a nekk euh, peut la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal. te amul les mesures d'accompagnement nga xam euh, des eaux de loolu dafa war a méngóog le ni population bi di màggee. sinon mënoo boo tegee ay euh, ay plan yoo xam ne c'était prévu pour peut-être deux millions de euh, un million de personnes. nga dem ba quelques années tu te trouves ay trois millions de personnes. forcément ce plan boobu plan assessment bi day faussé ce plan évacuation boobu tamit day faussé et c'est ce qui fait que on a à toutes les peines du monde pour évacuer l'eau à Touba. moo tax toujours boo déggee. amul benn benn benn hivernage boo xam ne jot na fii nawet bu am fii Sénégal te déggoo ne Touba am na inondation malheureusement autorités yi finalement sax yow nag tu te mais à quoi servent alors les CRD les CRD mooy réunion yoo xam ne dañuy présider parfois avant avant événement di xew gouverneur ba dem sur place Euh, ànd ak préfet yi and ak sous préfet yi ànd ak euh, kilifa dëkk bi ñëw ne leen wax leen lan leen mën a def wala lan mooy les problème yi xam ne ñooy posé wu comme ça ñun nguur gi mën si jël ay ay ay ay mesures. Mhm. mais finalement CRD yooyu tu te demandes est-ce que luñ fay wax dañuy wax ni di noter rek yendu fa naan seen ataaya ñibbi wala benn ministère wala ñaari ministère le concert fu mu nekk nii mooy le ministère de l'eau mhm. ak le ministère des inondations. Mhm. mooy Serigne Mbaye Thiam ak euh, le maire de Pikine nga xaw ma. West lañ ko wooyee Isaaxa Diop. Mhm. ñaar ñooy ñooy ñooy mbir mi. parce que ñooy en tout cas ñooy les principaux responsables des directions yoo xam ne ñoo ŋànk lii di assainissement. ak lii di euh, distribution de l'eau potable maanaam ndox boo xam ne moom la ñu war a naan si si Sénégal mhm. donc yooyu je crois que bu fekkee ne war nañ jël ay mesures d'accord ñoom la ñu war a adressé wu te mhm. yaakaar naa kilifa diine nekk Touba ñoom la war a waxtaanal mhm. d'accord euh, Abou Diop euh, am na pourtant sax benn plan directeur boo xamante ni pour assainissement wu ville de Touba ñi ngi ko adopté bu ma juumul ci fan yi ñu génn mu toll ci cent soixante-douze milliards pour wàllum assainissement ak ndox mais jamono ji am na beneen nekk na en exécution ñu wax wax 23 milliards yoo xamante nañ ko def ci biir Touba euh, pour euh, wàllum inondation et pourtant euh, ba tey jii problème mu nekk na problème bu réel foofu ca Touba. Pape Makhtar soo njëkkee teg plan. Mhm. xanaa balaa ngaa tegaat beneen plan danga koy évaluer xool lu mu jur ndax am na njëriñam déet nga doog a tegaat beneen plan bu fekkee ne les plans se succèdent et les résultats restent les mêmes. Mhm. foofu ndax jaroon na nga naan ay plan et gouverner c'est prévoir Pamatar man bi ma ràññee ba jonn yàlla tey jii di màggali. oui mu ñàkk ndox Touba.